dal leen ak jàmm mbokk internet yi ki jël kàddu mooy Mansour Faye jëwriñ ji ñu dong jëwriñ ji ñu dénk ministère du développement communautaire et de l'équité sociale jàkkaarloog taskatu xibaar yi ngir leeral li ñëpp doon ruumalaat ci fan yi ñu weesu jëm ci wàllu suul bukki sulli bukki dox ci diggante ministère bi ak yedd ci société yi nga xamante ne daanaka ñoom ñoo gañe marché séddale boobule dund ci ndortelu kàddoom ministre Mansour fay wax ne fàttali na ni président de la république jot na amal ab fond boo xamante ne nii mooy dimbali gouvernement bi ngir ñu jàkkarloo xeex ak jàngoroy coronavirus boobu fond nag ñu ngi ko jagleel ab budget bu toll ci junni milliards ci suñu xaalis ngir taxawal ak doxal palang yi nga xamante ne dina taxaw suñu koom-koom mi jëm ci ndërmelu te dimbali bu baax askanu Sénégal benn pàcc ci boobule palang ñu duppee ko assistance alimentaire ñu jagleel ko ci li toll ci juróom benn fukk ak juróom ñeent ci milliards ngir jënd lu mel ni ceeb diwliñ ak yeneen xeetu dund yu ñu war a séddalee askanu Sénégal loolu yépp nag ñu teg ko ci loxoy ministère du développement communautaire et de l'équité territoriale bi nga xamante ne kii lay di Mansour Faye moom mooy jëwriñ ja ngir indi ay leeral ci doxalin ak yorinu boobule alal ministre Mansour Faye wax na ni bëgg leeral mbir yi moo waral ñu jaarale ko ci yoon wi ñëpp xam ak anam gi nga xamante ne daanaka ci la l'état bi daan jaar ci looloo waral ñu daal di jokkoo ak mboolem banqaas yi nekk ci gouvernement bi te seen xam-xam màcc lool ci wàllum gestion des commandes publiques et itam kuréelu ministère bile jot nañu fësal ab bataaxal ngir woo ci nu mu gën gaaw képp koo xamante ne war nga mën a yenum yooyu le marché ci yoon bu leer te méngoo ak li ñu tëral ci wàllu dund gi ministre Mansour fay jot na leeral ni jënd nañu juróomi junney tonu ceeb bu sew non parfumé gën kaa juróomi téeméer téeméeru tonu suukar juróomi junney tonu suukar fukki junney tonu saabu ak fukki junney tonu saabu li mu doon sàkku nag ci képp koo xamante ne ni ab jaaykat nga boo xamante ni mën nga jaay lii ne ñu la laaj mooy nga jébbal say kayit ci nu mu gën a gaawee balaa ñetti fan ci weeru avril ca direction générale ministère ba ci ba délai ba jeexee jot nañ ci lu toll ci fan fanweeri jaaykat yu jota wuyu boobulee laaj bu ñu sukkandikoo ci kaddu ci kaddu ministre Mansour Faye ci lu soxal wàllum ceeb bi nag ministre bi jot na xam la ni jot nañoo jàpp ñeenti société ngir jébbal leen boobu leen marché société yooyu nekk yi nga xamante ne jàpp nañ ñoom mooy yi gën a yombale bokk na ci yooyu le société groupe Bambouk mi ñu jox ci lu toll ci ñaari milliards ak ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay million keneen ci ñoom di Aventus Charles mi nga xamante ne marché biñ ko jagleel toll na ci juróom-ñeenti yu toftal juróom benn téeméer ak juróom fukk ci ay millions topp ci Afri Enco ñu jox ko ci lu toll ci juróom-ñetti ak ñeenti téeméer ak juróom fukk ci million ñeenteel ba ca des mooy comptoir commercial bu ma njaay njaay moom itam ñu jox ko ci ci lu tolloo ak juróom-ñetti ak ñeenti téeméer ak juróom fukk waaye nag ministre Mansour Faye jot na xamle ni mënta joxe benn leeral ci lu jëm ci wàllub ab lu jëm ci wàllub marché bu ñu jagleel benn libanais ndax du ministère moom mooy joxe yooyu le marché ba tey muy leer leeral ni su fekkee ne Ryan Isham mii ñu wax ne moom moom yile société registre am nekkul ci ay société am nekkuñu ci registre bu APIX moom loolu yoonam nekku ci te mënu ci dara loolu mooy ay kàddoom waaye mel na ni ba fi mu toll nii mbir mi des naa leer ci bopp sénégalais yu bari lu ci mënti am ndéem li ci kanam rawul li ba dinañ ko gës gëstu bu baax ngir indi leen ci yeneen leeral xanaa di leen fàttali rek fii ak booba ngeen fexe di sàmmonte ak digle yi di raxas seeni loxo te wàññi dem beeg dikk bi kii bi mi ngi leen di jaajëfal.